Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. barakaatu ngi nuyu mbolom yeb di nuyu wa senegal wa Afrique wa, waa Europe ñep maa ngi leen nuyu di nuyu tele senegal yeb di nuyu Alay arignas ak ndawam Cheikh Mate diop xartam xaritam domam euh nek kenn ci mom and xartam xaritam. Birane Sarr mm, Sar Birane Cheikh Matiane Diop nek ndaw ci. diine ji TV ci télé El Hadj Adi ñu ngi laay sant ñu ngi laay gërëm bu baax danga ñoo bett nag bett goo xam ne fooguñ ko woon xewumuñ ko woon waaye tax nga ñu foog tax nga ñu xemem ko waaye fooguñ ko woon nag waaye tax nga nag ñu xemem ko ndax li ngeen laajte mooy li ngeen bëgg ko waxtaan mooy wàllu yàlla man na wàllu yàlla sama kàddu ñaar la ci lu ca tegee rek daf ca yokk nañ bokk gëm yàlla taragal ko nañ bokk gëm yàlla te ragal yàlla nañ gëm yàlla xam ne yàlla kenn la kenn du ko wutu fen xajul fen te xaj na ci lépp kooku nag nañ ko gëm ne ragal yàlla it kii fi indi te xamoo kenn laa yóbbu bi mu la indee xamoo fu mu lay indi bi mu laa yóbbu xamoo fu mu laa yóbbu te fokk mu indi la fokk mu yóbbu la na nga ragal borom boobu kooku rek mooy buur yàlla <laughs> buñ ko melee benn buur ndax kat laa ilaaha illallaah duñ ko yemale benn buur moom moom yàlla ñun nag gannaaw buñ santaane loolu si jaam yàlla yi ñu ngi ko sant suñu bopp yàlla ma ñu ak liimaan di sant aadi di ko gërëm di leen ñaax yéen taalibe yi julli waxtu yu juróom ak def farata ak sunna yi lépp lu baax ngeen nekk ca lépp lu bon ñu moy ko waaw lii mooy sama santaane teg tànk ci sunna si Muhammad sallallahu alayhi wasallam farata yàlla sunni Muhammad sallallahu alayhi wasallam jaamu yàlla liggéey jaamu yàlla liggéey waxtu jaamu yàlla nga dem jaamu ji yàlla waxtu liggéey nga dem liggéey te boole ko ak njub ak yërmande ci mbindeef yàlla lépp loo xam bokk ko jullit yi loo ñàkk muñ ko te jàng alxuraan ñu ne Misra Aliou daara alxuraan ñu ci lay nekk sama rakk yi dañu jàngale sama doomi yi dañu jàngale li fi nekk ci ay taalibe car ëpp cent cinquante personnes te bootuñ ci gannaaw kenn kuru Seydina Mohamed kon bu ngeen ñu waxee dara ci diine ji dañ leen ci tontu alxuraan la ñuy liggéey ak fiq xam-xam tool la ñuy liggéey bay lekk sàkku ñaan lu ñu xamul ñu ñaan ko yàlla yàlla may ñu ko d'ailleurs jaam yàlla ci ci jël ci julli ak liggéey ak jàngal xuraan téere yaa ngi ne ay xaafis ku ay xaalim ay xaabit ñoo fi nekk fii ci Misra Aliou Ndiaye sàkkuñ lenn nag ci Sénégal lu ñu ñaanal ñu yàlla ñu jub te barke mbooloo mi xam ne ak ñun yàlla jubal leen te barkeel leen waaye li ma bu loolu passé ne li may gën a sàkku daal mboolem kuy ndaw mboolem kuy mag demal futtiku liggéey tey jaamu yàlla waaw futtiku liggéey tey jaamu yàlla jaamu yàlla yàlla lu mu baax baax baax baax baax ku dugg xajana te mu dugal la fa te xaj te nangu laa jaamu yàlla waaye jànguñ ko man yërmandeem nag mooy dugal ni jama jama waaye na fe nga jaamu ko ne yàlla yàlla dimbale la turoo léegi yàgg-yàgg ñu jàppale tëj xalalam ji xalalam ji tabaxam bi tabaxam bi otom bi otom bi te nangu laa liggéey yàgg-yàgg ñu jàppale tëj ba maa ngi santaane taalibe yi ne lekk lu lew te du ko wut ci wut mu rafet loolu ñu yàlla sant ak alxuraan yàlla moo ñu wax ne ud'uunii astajib lakum ñaan leen moo ma may leen waaye bu kenn bëgg a yàqee nag ñaan ndax kat yàlla baax na baax goo xam ne sàcc bi ñaan na ko mu may ko ah ñaan na ko mu may ko mu dem sàcc raw reykati nit bi ñaan na ko mu may ko mu dem rey nit raw yàqata mbokk bi yàlla ñaan na yàlla dem yàq diggante yàlla may ko ko yàlla séexluwul kenn ndax muy rahmaan gannaaw seexluwut kenn nag ñun nañ fexe bokk ci ñi xam ne ëllëg du ñu seexlu waaye tey moom seexlu kenn bu ñu demee ba xat Ibrahim nag xam ne ñum seexlu xam ne ñum seexluwut su boobaa nag ti ti ti bam tibb xande yéen maa nekk ndimbal nañ ci bokk yéen waa rajo nag ak waa télé maa ngi leen di sant di leen gërëm di fedd suñu ko su ma diggante aadi tey ni ma bëgg waxee manuma ko ndax damaa xat te nga bett ma trop waaye Cheikh Amati Yane maa lay gërëm maa ngi lay sant bu baax a baax yaag sa xarit Birane sar di len gërëm bu baax di ñaan yalla ngeen doon mag question bi ma doon wax ak yeen du question pour euh, yeen lan ngeen lor Sénégal xajatu fi ku dem ci nit bala cinq minutes rek dañu xam ngay dox du olo hadi du topalé ndax fi ne kenn neexatu la nax am nañu ñoo nax ba léegi waaye bëritu nak kon dañ leen di gërëm bu baax way li ma santane nañ di julli wax yu juroom yaakaar naa foofu lu islam nañ di jagg alxuraan yaakaar naa foofu islam dalee nañ di dox bok nañ di genn xasaka nañ jup nañ xeexal suñu bakkan ba bu ñu mën a dugg ci mooy yàlla sama baay woy na ko nasadu laay wéy defal ko ab daaj ku jàngut arabic soo ko gis amul laaj xeexal ak bakkan xat nag ci la kat ba noonu jaal leen loolu loolu bu ngeen ko bu koy liiree da xam na wax nasadu baatu nasadu sama baay ma koy nasadu laay wooy defal ko ab daaj ku jàngur arabit foo ko gis xamul laaj xeexan ak bakkan xat nag sayaatiin bànneexi ci la kat ba leen ñay dama maɓe sokene noon banex poson la bum bul ko naan ray ko mude nga dawra ñaan la jotté nga la ni kero sira nga dem jim defal na pay guri jigen nam bu jëmoy ndax ñama yon xala ku ne ma fat naan setan yobul kërëm setan xajbi kum gërëm tek la mbugal soppile jaam dotul xam lu am jëri nekta nga am june dërëm fo laq fo nga dang faraw yalla yakko mi ngalaw nga de ci wi dem jim kon sénégal milliards yi bëri na wa gàcce gi bari na yal allah musal dama yaakaar ni nga ko la ni ala ilu ñaw wëro rek waaw mun a bëri malaan bëri dërëm taxul a xam suñu borom soog ay sagar ñeme tilim taxul nga réeral suñ borom waaw bëri malaan bari dërëm taxul nga xam suñ borom de te fi ne ko xamul ñaari dërëm xamoo million xamoo milliard loo wax ñu wedd la kon bari malaan bari dërëm taxul a xam suñu borom loolu alal du ñaawee sol ay sagar ñeme tilim taxul nga réeral suñu borom yàlla kii daal daf ko daj bu séexloon du bind xaj waaye ku bëgg a roon nag nga bër ci goj ba da nga naan ci am ndoxam doomu ma bala ngaa topp ni ki nanga nga xam ki nga topp mën na laa defer wala mën ulaay defer xam na yàlla wala xamul yàlla wax ma na xam yàlla ay léegi xam yàlla mooy na ragal yàlla na gëm yàlla na nangoo jaamu yàlla na nangoo jàng alxuraan ne diglu lu baax da ko tere te ba ko soo ko defee yàlla dana la gërëm mooy sama kàddu di leen sant bu baax a baax a baax a baax a baax di ñaan yàlla télé bii yal na màgg a màgg a màgg a màgg a màgg baax nga fa ngeen bëgg barki yonent yàlla Muhammad loolu bëgg naa ko yàlla def ko ndax kat man télé télé bu ma jël yaay ñëw bu ci man masuma gàmmalu andi ko waaye ren nag su maay gàmmo na ngeen ko andi waaw may naa ko aadi gàmm gu may defati na ma yor télé bi ndax indi na ma télé taxaw ma gàmmoo bu ma fekkoon man kenn nit wax yéen waaye yàlla sutura na ma mbooloo maa fi kon sant naa yàlla bu baax waaw islam rek li ñuy wax waaw islam nag man yaakaar naa li mu ci wax mën ko romb jàng alxuraan te da ko jàngale jàng farata yàlla ak sunu si Muhammad sallallahu alayhi wasallam te da ko gëm yàlla te ko xut xalaal ci sago xalaalan tayiban wasa wu lew wu sell wu teey ku ci mënta dox na nga xut loolu te aduna bi islam bi li ko yàq yëpp yëpp yëpp du lenn xalaal jigéen politique Moyak yak islam bi wow. waaw lo wax ñu witi la man ko jangé lo wax rek ñu witi la na ñëpp jang ku jàngu di diglo nga ba xam ba tax boy wax sax waxal kalam gi jàng gi nga nàmp rek mu leer nañ ñu xamé ñoo ci fi taxaan waaw nañ di jang alquran mu ngi ni diku len tax ma jëli ko tax ma nañ da talib xadis bu nit laaj suñu tontu la waaw nañ di jàng ne di julli wax suñu juróom ñu mooyu moon mooy yàlla bu baax mooy yàlla na fa bëri yàq bokk njaalo fen rey nit tooñ ku la tooñut def wax lu la war yëpp na ko Sénégal ba ci képp koo xam ne nag yaa ngi koy def gannaaw yaa ngi koy def waaw bokk gannaaw defa goo bul ko def te ñu dem liggéey xale bi yaana <laughs> baykat yi bay jaaykat yi jaay nappikat yi nappi ñu dajale Sénégal sedd te sell waaye kuy képp kuy lekk lu xaram ci lu xaram ngay mujj. wala gàcce waaw ay milliards duñ ko for. nañ ko ci sago teg ko ci yoonu islam ndax yeneen ñu wax ci diina ji diina ji nag dafa laaj lekk lekkul lew fi ne nii ni ñu waxatuñ ci affaire yi affaire yi kii riba waxatuñ ci ku toog da wax fi riba aadi laa digg mu see wax tuuti rek lekk lu lew waaw te kat fi ne ñu lekk riba bëri na de bëri na de xalaat yoo xam ne ñi mu walaa nettali na ko xamee kon jubut ah loo ñi mu re nettali na xamee rek jubut loo xam ne boo ci nekkee ku leen a jërëjëf yéen yàlla fay nga mer mm-hmm. baaxul waaye loo ne boo ci nekkee ku na jërëjëf yéen a yàlla fay nga ne amin mm-hmm. loolu moo baax nañ dem ci loolu maa yéen benn bi buñ ko dem mm-hmm. gannaaw jërëjëf wax nañ la ko nangu laa waaw kay dafa ngay daw mm-hmm. sàcc nga dëgg la yéen na la yàlla fay nga bañ la nga nekk baaxul kon yaari rek mooy sama wax assalamu alaykum warahmatullahi taala wabarakatuh ma ngi ñaanal ari di leen ñaanal yalla jamm yokku ma ngi jox kaddu gi Cheikh Cheikh alay babakar ndjay hmm. rak Serigne Mansour ndjay mu ngi ni tok lool mo ron sama kaddu yeen ñëpp ngeen bal maaq su jubee ci yalla la su di ci yalla la du ci man leg leg ma di quran su jubee ci ci yalla la su di ci man la déedéet nit amul katan hmm. bëre deugal hmm. oh, la hawla wala quwwata illa billah ken kenn mënta dëngal ku dul sama borom ken mën ta jubal ku dul sama borom waaw ku jub yalla la ku jubadi yalla la wax ji na mu ngi ni yalla yaa ngoog su jubee yow la su dëggee yow la suma fu nekk wasalaam bismillah kon tej gi moom sant la sante yalla yàlla ci teglu alhamdullilah alhamdulilah rabbil alamin sant len gërëm leen ñi ñi xam kaddu wax ko ak ñi déglu kaddu yi lima ñaan yalla yeen ko jëfandikoo te lepp lu yàqoon nañu leen ko waxe yalla nañu ci nekk yeen ragal yalla dal na ragal yalla bi ragalee yàlla dégg rey geen rent gi wàññeeku sàcc gi wàññeeku naqadi wàññeeku mooy yàlla gi wàññeeku mm-hmm. te yàlla koo ragalul sëñ Tijaan wax na ko léegi mm-hmm. yàlla ay na Adama ay na Muhammad ay na Yuusufa ay na Daawuda ñëpp dem nañ Cheikh Alaaji Ilu jaay mu ne xadina waa ji yaa nga biir mm-hmm. yow lekk nga doom lekk jabar xadiir yi def nga leen sagar lekk wurus lekk dërëm daana nga taxi fi noonu folli nga buri fi noonu ana yàlla ndax folleeku na mbër moo daje da nga ko naan xaj na waaye yaa jëlam nen ragal yàlla te muy ragal kenn ala ilu njaay koy wolof yu ner nañ waaw xadina waa yaa nga biir lekk nga doom lekk jabar xadiir yi def nga leen sagar muy teragaal yi lekk nga wurus lekk dërëm daane nga taxay fi ne woon fële nga buri fi ne woon mbër moo daje da nga ko daan xaj na waaji yaa jëlam bu ñu ragalee yàlla nag yàlla moom du ñu daane nen ragal yàlla tëggam ko rek wa rahmatullah bismillahi rahmaani rahim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 ربت سمانا ومكانا مضروبة في كل حديد بعدد ما كان مكة يا ويلات حدث مني إليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث مني إليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بجاي شيخ متيان شريف بركي ولو يالي يب بركي صحابي عارفي خطبي نجباوي نخباوي ñëpp yéen a yàlla tas seen barke te barke Cheikh Tidiane barke wulu yàlla yëpp daraja maam El Hadj Abdoulaye Niass mi nga xam ne moo jur ki jur aadi ñas mii nga xam ne tey moo jur cala cala jógee ñu koy sant di ko gërëm di ñaanal aadi ci barke bismillahi rahmaani rahim yéen yàlla wuttu la di la ñaanal yow Cheikh Ahmed Tidiane di la ñaanal yow Birane ak ñu fekk ci barke bismillahi rahmaani rahim bismillahi rahmaani rahim mbóot ma ak sekkare ba ak yaakaar ja yéen a wàcc suñu ko ñun ñëpp da jaar sulaay aadi yàlla musal ci làmmiñ musal ci bët yéen a nga xam jàmm yéen a nga xam jàmm a gii tooke yi fi dugg yéen fi génn jàmm yéen fi dugg te sax wasak dugg fi te sax fi xam-xam ak gëm yàlla ak ragal yàlla ak nangoo ko yàlla may di bakka allahumma salli ala sayyidina muhammadin habdika wa nabiyyika wa rasulika nabi lumi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wasila suñu sëriñ suñu xarit suñu yaakaar ja nekk ca bar sàq arkam itam si alay xeyri ko fédéral kuréel suñu diggante ak moom suñu ñaan gi yàlla na ko yàlla nangu yàlla nangu ci ñun barkeb seen sëriñ barkeb suñu sëriñ allahumma salli ala sayyidina muhammadin abi ko bi ñu def fatiha salaat fatiha ñaanal ko bi ak télé bi yàlla barkeel ko ndax yàlla nag moom adduxa ni ataju lakum ñaan leen may leen kon ne ñaan mu rek mu rang na bokk ci rek waaw bu bokkee ci rang bi ak kursi gi yàlla bokk yàlla bokk benn télé raw waaw yàlla ngeen bokk ca kanam waaw ñun yàlla ñu bokk ci nekk ca kanam yaa ñu tànn pour ñu nekk ci kanam yàlla ñu bokk ci kanam man ñun bëgg ñoo nekk lenn lu góor yàlla rek waaw góor yàlla nag ragal yàlla gëm yàlla rek waaw nangoo jàmm yàlla waaw bismillah rahmaan rahim fati salaat fati ñu naan ko aadi ak njaboot gi toog fa tabarakallaahu xam naa say maam bu baax bismillah rahmaan rahim alhamdulillahi yaa kër bu yàmati ak saat wa tax اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق نصر الله Bismillahirrahmanirrahim. لما خد الدنيا إلى من الخيام الصلاة تملو السلام على من السماء لما كرم رب أرسل مسلم مباركا وأنت خير مسخار إبراهيم رب إجعلها صبرا آمنا وارزق رب صبرات يعني على بركة كبير بركة لا تلبي تبارك أنت على محمد مسخار إبراهيم رب إجعلها صبرا آمنا وارزق رب صبرات فكان سم تلبي يلنا بركة فكان كيوب يلنا بركة فكان تو يلنا بركة بركة رب أرسل رب لا تسني فردا وأنت خير واسد رب هب لي من دكولي أنت ولينا فني أمال ولا منسل كم أبرار وسبت بلم سرا أبوه وأنا واري بن مختلون لكم لك يا خير ورا سرفا فلا بس منكم متقمي ومن تكن برسول الله نصرته انت خاجي فاجمتي وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد رسول الله ومت نور في كان في الله نور في كان في رسول الله نور في كان في القران العظيم نور في بسم الله الرحمن الرحيم الف الف لا اله الا الله محمد